L'air du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بقد جل جناب سنت برم سبحانه وتعالى جل سيرة عبد التدبير صلى الله عليه وسلم بقد نرى جام نقص أي صحابة كيف هو هم نتنقى ستان قنية تقول سنتان قبكرة بسبنج لنجي نعم برم سبحانه وتعالى منقل يسيه جامو يالله waaye it mu jégal nu suñuy rëcc rëcc koor gi ñu nekk nii bépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko si rek yal nañ ko suñu borom nangu la waaye it yal nañ yàlla boole si ñi nga xam ne daf leen goreel si weer bi nii wenn weer bi moo ne chaque jour dina am mbooloo boo xam ne yàlla leen génnee safara yóbbu leen àjjana yal si yàlla boole waaye fukki fan yi ñu nekk nii fukki fan yu rëy fukki fan yu am ngëneel bis biñ ciy séntu muy leetul xale yi yal nañ ko suñu borom dëppale ak moom xam ngeen bis bu rëy la bis bu màgg la bis boo xam ne yonent bi nee na képp koo xam ne yàlla dëppal na la ak moom rek xamal ne mooy égal yàlla jégal na la sa dund lépp parce que boo xoolee jamono ji suñu dund la plupart du passé soixante-dix du passé du passé soixante ba soixante-dix léeg yow boo dundalee fukki fan yi nga def rek laylatul qadr bi bu ko sa borom jéggale saa bu nekk mooy yow jikko nga rësoo dund yëpp kon yàlla ko yàlla dëppale suñu xutba ñu ko jëmale si aaya bi yi xam ne moom mooy inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim suñu borom dafa wax si alquran karim mu ne inna allaha suñu borom subhanahu wa taala la yughayyiru ma bi qawmin du soppil ab xeet seen melokaan ak seen dund hatta yughayyiru ma bi anfusihim lu ne ñoom ñoo jug bëgg a coppeeku ba yàlla tax ñu soppi leen seen xam li tax mawdoo bi ma tànn ko mooy suñu dëkk jamono ji dafa toll si essence boo xam ne essence bu am njëriñ la bu am solo la mooy lan suñu borom dimbal nañu tab nañu njiit bu bees njiit boo xam ne boo xoolee yaakaar ñëpp yaakaar jeunesse bi yëpp dafa tegu si ndondam ngir lan ngir mën a avancer suñu dëkk ngir mën ñoo génne si li ñu nekkoon depuis jamono indépendance ba léegi ñu mën see génn loolu nag saa bu amee nag ñëpp bu ñu amee yaakaar sax njiit nekkul moom rek lañu toog xool ko mu daal di liggéey ñu ñooy jóg takku ànd ak moom liggéey ndax bi président bi ko président dañ koo tabb ne ko jiite ñu nga jàppale ñu si liggéey bi ñun ñooy guddeeku wàcc si terrain bi ànd ak moom liggéey bi mën a avancé nekkul moom mooy jug nekkul état mooy jug ku nekk mu fekk ne daf koy nekk ne la liggéey ngi nii kër ngi nii oto ngi nii xaalis ngi nii noonu mais état lu mën gert la wan la ne la fi ngay jaar nii ngay def ak nii ut ay liggéey teg yow yaay dugg nag dem wari ji liggéey d'ailleurs nag am ay mbir yoo xam ne ñun ñu koy def suñu société bii ñu ngi koy def Sénégal ay mbir la yoo xam ne day te dëgg avancé léegi nag bu ñu bëggee avancé nag il faut mbir yi ñu jël ko sànni ko ginnaaw pour ñu mën a avancé léegi nag mbir lañ bëgg a waxtaanee tey jii mbir yi saa bu ñu ko bàyyee rek insha allahu suñu borom dinañu jàppale ñu mën a avancer mu di ay bàkkaar bàkkaar yoo xam ne dafa dem ba suuf si jamono te pourtant bàkkaar yu rëy la ñun mooy li nga xam ne moom moo te bu gisee dëkk bi avancé dul nit ñi day ñëw di liggéey ba sonn mais dëkk bi ñu ngi def moo tax daal di toog seetaan xam nga ne suñu borom ku mu seetaan rek seen mbir dara dox am na ay xeet yu fi nekkoon avant ñun ñooñu ëppoon doole ñooñu ëppoon puissance économique puissance armée yàlla am na fu mu jaar ak ñoom bëggal leen jëy leen yàlla mi ngi wax naan alam tara kayfa kayfa fa'ala rabbuka bi 'aad irama zaatil 'imaad allati lam yukhlaq mithluha fil bilaad xeetu ñoo xam ne comme ni yàlla waxee lam yukhlaq mithluha fil bilaad yàlla musul bind ñu mel nii ñoom ñool nañ am nañ doole am nañ kattan mën a liggéey nangu leen liggéey am nañ xaalis am nañ arme am nañ lépp te pourtant yàlla dafa am fu mu jaarale ñoom tey bu fekkoon ne doole moo tax nga sax bi bu fekkoon ne xaalis économie arme moo tax nga sax bi yàlla deen fi bàyyi mais topp seeni i bakkaar topp seen i bakkan moo tax yàlla bàyyi leen am fu mu jaarale ñoom kon nga dégg si ne àdduna na am ñu koy téye nekkul am doole rek moo tax nga nekk si àdduna kon bakkaar yooyu nañ fexee jàngataat bàkkaar yooyu ginnaaw bi nga xamee ba ginnaaw bi nga xamee ba pare ñu fexe koo moytu sinon fekk mënuñ rek dëkk bi du mos avancé li mel nii rek fi la nit nekkee kon bàkkaar yooyu bi si jiitu moom mooy ashirku wal xuluwu ashirku moom mooy bokkaala wal xuluwu ak ëppal ñaar moom foo leen fekk ñoom ñaar ñooy ànd bokkaala ak ëppal ba nag bu ëppal sax moom moo indi bokkaala ndax boo xoolee bokkaale cosaanam démb la woon da seetu yonent yàlla Nuux avant Nuux di ñëw ñi fi nekkoon di commencé diggante Adama ba Nuux dix siècle moo fi nekkoon ñooñu ñëpp daawuñu bokkaale daawuñu nekk si ndox dul noonu moo tax ñu nekk si dund bu dal dund bu tey yàlla nee na kaaram naa suuf ma doon waaxida ñi fi nekkoon avant Nuux benn xeet lañ la ñu woon benn yàlla lañu amoon daawuñu bokkaale daawuñ def na ko sul noonu moo wax yàlla baaree bi ñu dund dund ko tey mais ban demee nag ba xeetu nuux ñëw ba bokkaale commencé rek si la àdduna commencé soppeeku te ëppal mbokk yi dafa nekk loo xam ne baaxul mbir mu dugg rek da koy yàq boo doon yem fii ëppal mooy poussé nga yemale ko feneen xeet nuux ñoo fi ñëw nuux nekk ak ñoom di leen daawa di leen laaj biir di leen conseil di leen xamal bokkaale baaxul mais ñoom lu nekk def nañ ko léegi nag nuux boo demee ba seeni sët nekk fi iblis dafa ñëw nax leen ne leen yéen day am na ñu fi nekkoon ñu baax seeni juróomi maam ñu fi nekkoon ñoo xam ne ñu baax lañ te yéen da ngeen nekk ñoo xam ne ngeen mooy yàlla léegi nag damaa bëggoon seeni maam yi fi nekkoon ngeen jël leen dafi seeni stade yi dafi seeni photo nga xam ne kenn si yéen bu demee bay mooy yàlla rek bu dundee gis photo maamam rek dina fa ne maamam béykat ku sawaroon la si jaamu yàlla loolu dina ko motiver mu ñëwaat kon yaa ngi stratégie bi léegi ñooñu ne ah kon li garaaw léegi naa jël sama maam utal ko photo dugal ko sama néeg taf ko foofu mooy comme ñun tey li ñu xewal nii tey da nekk sa kër tey kër boo duggal di gis photo kilifa gi taj si buntu kër gi wala si biir kër gi mu taxaw la moo tax ëppale moo leen koy indil léegi ñooñu ba demee ba jóge iblis ñëwaat ne leen gis photo yi nii nekk fii seen maam ñi ñoo nekkoon seen yàlla léegi dama bëgg ngeen jël leen génne leen si biti ut place boo xam ne ñoom rek ngeen fay def ñoom ñu nekk seen yàlla ku am soxla dama fa ñaan ba ku am loo bëgg rek nga dem foofu tàllal say loxo gis nga léegi ñooñu commencé jaamu ñii nii la bokkaale ñëwee si àdduna la moo ko indi ëppal moo ko indi <coughs> kon ëppal ak bokkaale ay mbir la yoo xam ne day teye dëgg avancé te boo xam ne ñun suñu dëkk bocal dafa dem ba sud bocal dafa dem ba bëri te Sénégal bu tëddee fii bu avancé wul ñaari mbir moo ko téye bu avancé mooy lan bocal boobu biñ bi def mooy la maison politique ak la maison religieuse ñaari yi rek ñoo yàq dëkk bi politiciens ñu ngi fi di yàq rek di jaxase lu waaye mën def di tourner di détourner xaalisu jàmbur yi kilifa diine yi ak suñu sëriñ yi nga xam ne defaluñ yàlla yàlla dafa fee toog nekk si benn côté bi di leen jàppale di leen gën a yàq te boo xoolee suñu yoo xam ne dama ñoom dama toogoon ne jàll waxuñu te pourtant nit ñoom rek lañ jox nopp ñoom ñoo waroon na njëkk génn nekk si kanam di diriger askan bi mais nekk suñuy nekk rek di mut noppi te ñoom bu ñu defoon li leen war génn xamal njiit ñi ne leen lii du nii ak nii te dëkk bi du àggu fii nii mais ñoom seen bopp lañ fi nekk ak seen i poche kon ñaar yi nii nekk na loo xam ne day teel dëgg avance muy mbokkaale ak ëppal léegi dangay gis koo xam ne day ñëw lekk ba suuf yàlla wërsëgal la yombal la nga lekk ba pare nga ne jërëjëfee diw ana yàlla mi la joxoon wërsëg bi nga lekkee ana yàlla mi a jox gémmiñ bi nga sàqamee bu ko nekkoon sa gémmiñ say bëñ day metti doo mën a sàqamee tey demal hôpital wala nga xool koo xam ne mbëñ bi day métti kooku est-ce que dina mën a lekk du mën a lekk yow nag yàlla yaa ngi koy wala dimbali la nga lekk ba suur amoo looy def lu dul taxoon ne yaa ngi sant keneen kon yow yaa gàtt xel yow yaa mën a bokkaal yii nag saa demee ba siiw te yow da ngay waat si kenn da ngay waat si boo xam ne nekkul yàlla jël jël say mbir yu ko nit yi bu yàggee dëkk bi du ma sa avance bépp dëkk boo xam ne dafa am ay bopp yu bëri du avancé de lay am muy benn kilifa ñëpp di ko déglu ñëpp muy dem mais bu kii di wax bi wax bi kii bi dëgg bi kon suñu borom mi ngi wax a Quran mu ne wa'ada allahu alladina amanu minkum wa la yastaxlifannahum fil ard ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di jëf jëf yu baax yàlla nee na naa leen bàyyi si kaw suuf si waaye yemu si wala yu makkinanna lahum diinahum alladi seen diina bi naa leen ko jàppandal ngeen nekk ñu am kàttan nekk ñu am doole boo ko ne démb saxaaba yi ak nit ñu baax ñi la moo taxoon ñu am doole ba yéeféer ñemewu leen ku bon ñemewu leen ñoom ñoo fi nekkoon pays am doole am lépp la moo taxoon dañoo sori woon bokkaale yonte bi nekk na treize ans mag wootam leen kese la xuulu laa ilaha illa allah tuflixu wax leen laa ilaha illa allah bu leen bokkaal yàlla bu ñu ko defee rek da ngeen ni texe kon mooy woon ne bokkaale lu bon na bokkaale day yàq jëf jëf yi nga jëf yu baax da nga yàq yem nga si waaye da lay tee avancé day muur sa xel ba yow ñu mun dem kon yàlla nee na wala yu mag ci na lahum diinahum alladi tardoonahum sa diine yàlla moo la koy jàppandal ba nga neex ku dëgër wala yu baddilannahum min baadi xawfihim am nan yàlla moo leen may dal ak sécurité ginnaaw bu nga tiitee waaye nag dafa am cause buy tax mooy lan yaabuduuna nii laa yushrikuuna bi shay'a da nga may jàmm te du ngeen bokkaan ak kenn saabu saabee ko defee rek man yàlla maa leen jàppandal si kaw suuf ngeen nekk ñu am kàttan nekk ñu am doole kenn du leen mën a dara waaye nag bu man kafa ba'da zaalika fa ulaa'ika humul faasiquun képp koo xam ne nag dangay bokkaale yàlla weddi yàlla faale woo ko jël seen nopp jox ko keneen xamal ne suñu baaxul lëkk si ngay lëkk si kaw suuf si bi kon yàlla na yàlla musal si bokkaale saa bu ñu ko bàyyee rek dëkk bi léegi mu avancé bokk na si ba tey si bakkaar yooyu nga xam ne day tee dëkk avancé moom mooy adamul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar moom mooy ñàkk a digle lu baax ak ñàkk a tere lu bon lii nag bakkaar la bu rëy boo xam ne daanaka mën naa lii moo tax ñun ñu gën si yéen ñun ñu gën si yeneen xeet yëpp xeet yéen di boo boo gisee yàlla gënal leen si xeet yëpp may ne ñoom dañuy digle lu baax di tere lu bon yàlla moo ne wala takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar mu waxaat ba tey kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah yéen de kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen a gën si nit ñëpp yéen yéen a gën si xeet yëpp tam moo tax ta'muruna bil ma'ruf di ngeen digle lu baax wa tanhawna 'anil munkar ngeen tere lu bon wa tu'minuna billahi ngeen a gëm yàlla léegi dafa dem ba léegi lu raar na léegi nit day def lu bon yow boo ñëwee di ko jëm laaj bi fu mu lay wax seen nekk loolu mooy seen nekk ñun léegi dafa jàpp ne seen lu mu nekkul moom mooy yow bopp sa bopp rek hmm. boobu sa bopp defalul diine defalul àdduna sa yent bi yàlla mën na koo jàngal xamal ko diine mu yem si boppam kese bu dee mu dem àggal loolu amul sens yàlla da koo ne eh jugal bal rek maa unzila ilayka min rabbika diine ji bu mu yem si yow lu baax li nga nekk nii yéene ko sa morom mu jug dem daawal leen mu jóg dem woote leen am na xeet boo xam ne suñu borom daf leen a bëggoon a mbugal yebal malaaka bi mu ñëw malaaka bi dafa ñëw ba bëgg leen mbugal gis ne am na ko nekk benn dëkk boo xam ne day jaamu yàlla rek malaaka bi dellu si yàlla ne ko yàlla am na ko fa nekk koo xam ne jaam ko yàlla bu mag la man mënu ma leen mbugal yàlla ne ko eh boo demee commencé la si kooku di jaamu yàlla la ma tax yàlla na commencé di kooku parce que moom du digle lu baax du tere lu bon kon ñaari it si bàkkaar yi nga xam ne dañ ko desal ginnaaw la bokk te pourtant lu amoon solo la woon banu Israël boo tax boo gisee yàlla rëbb leen yàlla ndàpp leen yàlla sàjj leen si yërmandeem mooy ñoom kaanu laa kaanu laa yanhawna an munkarin fa'aluhu ñoom daawuñu terante lu bon day nekk si lu bon sa moom gis ko du la faale du la tere ñun léegi nit day nekk si lu bon nga ko mooy la maandul maandu mooy lan maandu dëgg dëgg dëgg ñun ñoo changé maanaam bi yóbbu ko si leneen mais li maandu dëgg dëgg mooy nit ñi nekk si loo xam ne du noonu dañoo nekkee eh, du nii du nii loolu mooy maandu kon digle lu baax ak tere lu bon si mbir yi nga xam ne dañ ko war a indiwaat si société bi loo bokk nit day def loo xam ne baaxul sax si dëkk bi mais kenn ko tere la moo tax dalaa naan fii mbedd buur la neex waaye def te lii defarul am na defarul alaaxira kon dañ fexee indiwaat lii saa buñ ko indiwaatee rek dëkk bi dina jagaat daa bokk si bàkkaar yi nga xam ne boobu moom moom daa bokk ci bakaar yi nga xam ne tamit moo taxoon yàlla mbugal waa banu Israël banu Israël yàlla si leen waxoon bu leen napp bisu samedi yàlla may leen ne ñu napp chaque jour géej gi day feet dal ay jëm waaye bu leen nag lu commencé lundi ba vendredi mu ngeen napp mais samedi man yàlla maan ko tere kenn lal géej banu Israël bu ñu def samedi day ñëw tëmbal seen mbaal nga xam ne jën yi day dugg seen mbaal yi duñ mën a génn dimanche bu ñëw xëcc ko léegi yàlla digal leen ñu baax ñi di wax wa id qaalat ummatun minhum lima ta'izuuna qawman allahumma muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban ñoo xam ne ñu ngi fa di leen tere naan leen kat yàlla day nee na bu leen napp bu leen napp samedi gars yi dëgër bopp bañ koo bàyyi yàlla fu mu daar ak ñoom falammaa ataw amma nuhu anhu qulnaa lahum kuunu qiradatan xaasi'iin kon gis nga ñoom dañu leen a tere ne leen lii kat bu bon la bàyyi leen ko ñu dëgër boobu moo tax yàlla mu di leen soppi ay golo def leen lu nekk kon dana leen ne ñun de mais suñu xel yi léegi boo ñoo gën a nëx xel léegi kenn ku nekk bu xoolee suñu di nga xam ne ñun suñu xel yi léegi ba nag bu dëgg bu dëgg bu tolle fii ñu ñoo tax dëgg bi tolle fi ndax lan suñu xel yi moom baaxatul ndax lan ndax bakkaar yi ñuy def nii ñun dañoo dem ba tàmm bakkaar te bakkaar yàlla wax na ne yonte di wax na saa boo defee benn bokkaat sa xol dañ ciy def benn tomb bu ñuul nga defaat nit ñu defaat benn tomb bu ñuul day dem ba sa xol day lëndëm crise te xol bu lëndëm mooy ki nga xam ne taba allahu ala qulubihim lu ko xam ne yàlla moo tëj sa xol moo tëj sa xel yow doo gis dëgg doo gis lu baax sa bët yi day kulu day muur lu bon rek ngay gis yàq rek ngay gis kon lii bokk na si li nga xam ne tax na suñ dëgg bi tey mën na avancé dañ ko mën suñ dëgg bi avancé bokk na si ba tey si bakkaar yooyu al mujahara almujahara moom mooy pësal bàkkaar li moom defe naa ne moom boo ko xeente bi di waxoon suñu jamono bi moo taxoon mu gën ko di wax démb nit day nit day def bàkkaar rus am kersa du génn si biti day fexe la wala sax mu daw dem beneen dëkk ngir lan xalaat na bu génnee si biti nit ñi xool ko bëdd yaa fi def lii yaa wax lii yaa def lii mais tey génn day ana ñun bëccëg bu dara tàmp la nit di gën def bakkan bu ne wenn du kenn du gis nit ñi léegi xale yi bu ñu commencé màgg rek dañu commencé def bakkan la moo tax mag ñi da nga gisee mag ñi amuñu kenn biti ngay nekk def say da gis koo xam day génn taxaw si bi tux si kanamu xale yeeg kanamu ay soxnaam ak ay doom ay kii léegi du gis xale yooyu bu ñu est ce que yow bu nga taxaw boo waxe mo ne papa yaa ngi daan uh, wala nga gën taxaw seen kërëm di nan sangara bëjëng dara rek di wër ci nit ñi wala wala nga gis ko xamne nit ñi dañuy dañu nekk en plein ramadan nañu wor mu nekk ci bidi yor kaasa ko xam di nan rusul nit ñi rusul yalla bu dul dara sax yow bo ñaké jom bo defo li nga xamne yalla mo moo la ko digal woro mais amal kete sax nga dugg sa bi nag nga laqatu nga naan sa nan naan sa café def li nga def nga fonk sa gémmiñ mais gi nga légui ñun amuñu kete amuñu ci bidi lañu gën def ni bakara borom léegi bakar ñu dañoo dem ba woyfal ko te bàkkaar nekkul lu woyof day tee dëkk avancé xeet yu njëkk yi la moo def yàlla mbugal leen pourtant ak ñoo amoon puissance économique la ñoo amoon puissance armée mais bàkkaar yi ñu def moo tax yàlla mbugal leen te bàkkaar bu yeggee si dëkk yàlla day dem ba seetaan leen te yàlla moom ku mu seetaan rek yow sa dëkk du baax ak sa dara du baax bi nee illa al mujahirun sama xeet ñëpp yàlla jégal seen képp def yàlla dina Eh, ba mu des benn ba mu des kenn mooy kan illal mujahidun koo xam ne boo defee say bàkkaar da nga koy génne si biti fësal ko ñëpp di ko gis faalawo kenn rusoo kenn comme ni mu siwee si jamono yi léegi yent bi saxaaba yi loolu mooy lan mu ne leen wa inna minal mujaharati an yaxmara na am lu maasiyatan fi leen daa bokk si fësal bàkkaar guddi jot nga nekk sab néeg def sa bàkkaar def sa lu ne weng yàlla suturaal la nga nekk sa néeg tëj sa bunt tëj fenêtre wàccee rido wàccee lépp nekk biir néeg bi li nga def yàlla suturaal la sàng la mbaraan bi kenn gisu la te bu ko neexoon da ngay weer ñëpp gis la bu ko neexoon yàlla moom xam nga ne buntu téewu ko fenêtre téewu ko moom dal téewu ko bu ko neexoon nii lay def néeg bi nga jàqaloog ñëpp wala sax bu ko neexoon yaa ngi nekk si li ngay nekk dee bet la nga dee boo xëyee nit ñi fat poos day ñëw fëgg sa néeg boo ne boo dañ koy tàjji buñ di gis ne gis la nga nekk ci lu bon nga nekk sa bàkkaar mais yalla dafa lolou lu ran lay suturaal nga nekk sa nekk moy yalla bu bare amoo lo def dul xëy ci bit man ak ah, man kat ma def li ma def li lolou sa bu yagge rek day tax nit day dem bay ñak jom bo tam lu bon mo tax léegi suñu bëgg bi du gawa dem parce que ñun ñëpp léegi faatu yalla te yalla nak moom moom adnaam de yalla yonam bi bi mu tëral adna do avancer fekk yeen boobu jubaluñ ko fekkee nu tawuñ ko fi atta yàlla moo gën a maandoo si atta yëpp moo tax ñu jël saxaaba yi démb amoon doole amoon kattan la moo doxoon dañoo jël li nga xam ne yàlla moom la bëgg ñu teg ko moytu bàkkaar moo tax yàlla may leen doole kattan boo xam ne kenn ñemewu leen mais ñun léegi luñ def dañoo bàyyi loolu yëpp bàyyi jaamu yàlla ginnaaw bàyyi ñee ginnaaw moo tax duñ mës a avancé chaque jour dañuy rêvé dëgg daa war a avancé politicien liggéeyuñ diw nangam ak nangam fekk changement bi suñu ñii la war a commencé ñun war a njëkk a changé ñoo war بقول يا أنك نجد بدون جو شان يا لم نجد يا لم نجد ذلك أن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم ين ين يجد بقى شان له ون يا لم نجد نجد بقى شان له يا لم سوى نجد شان له تشان ما بقى ده نكسدان سين نخيال خيال له بقى kon bo tamit ci bakari la bok yi nga xamne motax sun deug bi mëna ñu avancer ba tay bokk na ci bàkkaar yooyu ba tey a walaatul aadaa yi moom mooy ñun léegi noonu yàlla yi ak tubaab yi ñu léegi ñu gën nekk suñu wëlëre ñu gën nekk suñu xarit que ñu baax na te li woon yoon moom mooy alwalaa wal bara nit da ko war a def alwalaaw lillaahi wa li rasuulihi wa lil muslimiin wal baraatu mimma siwaahum nit da war a jël sa péede en que comme yow jullit nga rek jeex na yow sa péede ak sa ànd ci kenn la war a def muy kan yàlla léegi nag yow da nga war a set si képp lu ñoom mais ñun léegi lu ñu def bàyyi jullit ñu ginnaaw ñun léegi sax tubaab bi lañ gën a fonk ñun ñoom gën a jox cër ñun léegi si ñoom lañ jëlee exemple xam nga tey bu ñu demee ba dëkk boo xam ne boo jël exemple lu baax si tubaab bi ngay jël te da ngay gis nit toog te naan xool dëkk tubaab bi nanga man na dëkk tubaab bi ñoom def nañ lii def nañ lii li moo tax seen li moo tax seen dëkk avancé xam nga lii saa bu ñu àggee ñun ñun dañoo war a xool suñu bopp jullit waroo jël exemple si koo xam ne nekkul jullit mel ni dafa ko waral ñun jullit ñun ñun sax léegi ñun dañoo dem ba ñun sax ñoo gën a kàccoor ba ñun ñoo gën a yàqu ba ñun ñoo gën a bandi moo tax léegi ay yéeféer ay tubaab ñoo fi ne di nga jox ay bon exemple te fekk loolu nekkul woon yoon te yàlla nee nag walam tabaa am kal yahud wa nasara xataa tattabi am millatahum yahud yi muy juif yi ak chrétiens yi duñ la mës a gërëm duñ la mës a nangul duñ la mës a comprendre lu dul ne xataa tattabi am millatahum da nga toppoon seen diine bu dox ngeen ngi tubaab bi ñëw fii di yàq suñu dëkk bi rek chaque jour bu ñuy def président bi saa bu am na rek day ñëw jéem a jege si jéem a corrompre président bi jéem a corrompre ministre bi jéem a corrompre ñu bëri pour lan ñi nga xam ne ñoom ñoo yor dëkk bi ba leen tubaab bi wëree côté bu nekk dëkk bi nu muy avancé kon fekk tàquñu yéeféer fekk sanul leen ginnaaw fekk bàyyiwul leen dëkk bi du mos a avancé ndax yéeféer du mos a bëgg jullit yàlla moo ñu gën a xam jéeféer moo ñu ko wax walan tarda anka al-yahuud wala nasara duñ la mos a gëm lan ku jàng xam ne lan lan day dàq dàq boobu moom doo dootul mën a ñaata lan xarfu nafi la mooy walan tarda anka al-yahuud wala nasara yéeféer duñ la mos a gërëm duñ la mos a bëgg duñ mos a ànd ak yow saa bu ñu ànd ak yow rek saa fekk ñu ñëw bëgg a ngistal bëgg laa nax te ñu léegi ñun ñoom ñoo nekk suñuy roy waay bañ nag ba suñu dëgg lépp nekk lépp ñun ñoo ko def te loolu day tee dëgg avancé te ñoom dañ leen dàq jëlee leen fi jéem a jox yàlla dem noonu jox yàlla ci la loolu tax ñuy avancé mais fekk ñoom ñu ngi fi duñ mos ndax ñoom duñ ko seetaan duñ ko nangu boo xoolee tey dëkk yi ko nangu Afrique yëpp nu ñuy def day ñëw di jéem a jaxase waa dëkk ba Afrique tey boo xoolee dëkk yu bëri dëkk yoo xam ne amatuñ gouvernement amatuñ président amatuñ njiit la moo tax amoon nañ président bu baax di liggéey def lépp mais tubaab bi ñoo ñëw jaxase leen ak seen leen tàq leen tëj leen dëkk bi ñu mujj nekk si ay xat ay libi da moo tax léegi Libye Libye ba tey amul ba léegi ba tey amagul ma ba tey amagul président la moo tax boo xam ne dëkk bi day xaaj boobu dëkk bi rek lay considéré dëkk bi faalawu ko la tax tubaab bi ñëw ba ñëw jaxasale ba ñu rey ba ba ñu jëlee ki fa te boo ay ay dëkk yu bëri léegi amatuñu gouvernement la moo tax tubaab yeeg yéeféer yi te ñooñu fekk bàyyiwul leen fekk tegul na ginnaaw ba ñu mës a dem yàlla mi ngi waxaat ba tey mu ne tara kasiran minhum yatawallawna alladina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakata allahu alayhim wa fil azabi hum xaalidun banu israil bokk na fii tax yàlla mbugal leen mooy ñoom dem ba bàyyi seen bokk jullit jëm xaritoo ak ñeen ñoo xam ne nekkul moo tax yàlla mbugal leen yàlla nee na walaw kaanu yuminu billahi wan nabi wa ma unzila ilayhi mattaxaduhum awliya ki nga xam ne dafa gëm yàlla gëm yonent bi doo mës a jàpp yéefee doo mës a jàpp ku dul jullit mu nekk sa féete kon loolu nañ ko sori yàlla waxal na ko de mu ne laa tajidu qawman yu'minu billahi wal yawmil axir yuwaaduna man xadda allaha wa rasulahu ku gëm yàlla koo xam ne gëm yàlla gi dëgg la si moom gëm na yonent bi gëm na laaxira kooku doo ko mës fekk muy péete ak koo xam ne gëmul yàlla bokk na si bakkaar yooyu bu dee ak sixru mooy njabar njabar moom defe naa moom suñu dëkk bi léegi moom dama dem ba léegi woyfal ko léegi léegi léegi sëriñ léegi sax ñoo ëpp léegi léegi chaque jour da ngay gis chaque jour ñëw la ku bees koo xam ne ñankat la wala day istixaar wala day def leen te naa la plupart ni ñu bëri njabar la ñuy def njabar moo mooy leen moom mooy jéem a diir yàlla mbagg ak jéem a xam loo xam ne ñëwul loo xam ne yàlla rek moo ko xam nga nekkat suba dina am lii wala kii may nekk président wala wala bëri bi kii mën daan wala mas bi kii mooy dóor boo xoolee suñ dëkk at yu mujj yi yàlla feeñal na toppalekat yëpp ak ñi nga xam ne dañu toog di wax si turu yàlla naan lii day am lii day xew boo xoolee yàlla wenn la ñoom ñëpp te bu ñun dem ba ñun dem dañu ñu joxoon nopp di leen déglu ku wax rek ñun ak ah, diw kat wax na diw nee na lii ak lii wala ñu la diw kat day gis wala du wax dëgg la fekk loolu amul ñabarakat foo ko fekk du wax dëgg ñabarakat mooy koo xam ne jinne yi dañuy tegaloo ba si asavance bu ñu dégloo benn xibaar ñëw jox ko njabarkat bi yokk si 99 yokk si téeméer yu manqué benn fen nga xam ne dañ koy boole bu nekk téeméer ñoom day ñëw jox ko njabarkat bi day moo tax nga gis kenn bu waxee rek affaire bi am am rek ñu ne ah diw kat ku dëggu la diw ñaankat la diw ku xam la fekk xamul boo xool li muy wax yëpp benn moo ci nekk dëgg kon njabar nekk na loo xam ne lu bon la day day dëkk avance bokk na si ba tey adamu salaat yi aw istihaanatu bihi julli julli léegi ñun dañoo dem ba ginnaawal ko ñun dañoo dem léegi ba sàggane ko te julli moom ginnaaw gëm yàlla moom moo lay mën a jàllale moo lay mën a avancé ba nga ba tur bi sax wane na ko jullit jullit day julli pour julli lan pour ko jullit ndax yoon bi moom moo ne alhamdulilah yi bayanaa wa baynahum as-salaat suñu diggante ñu nag yéefee di lenn moo ko nekk muy lan asalaam julli fa man dara gaa waxal kafar képp kaa julli rek yow yéefee nga amatul sax ak yooyu yow yéefee nga si sens la yonent bi na benn rajuli wa benn shirki wal kufri tarku salaa jullit da nga xam ne moo dox sa digganteeg bokkaale li dox sa digganteeg kéeféer mooy lan julli képp ku bàyyi yéeféer bi du ñu léegi moom dañ koo sàgganee léegi te pourtant lii moo ñu téye julli yàlla waxoon na ne tanha anil fahsha'i wal munkar jullit day tee lu bon tey tey nit ki def lu bon te léegi boo xoolee nit ñi léegi dama war nit ñi léegi dëng nit ñi léegi tàmm def lu bon julli dañ ko ginnaaw te julli saa bëggoon nit fonkee def ko ni mu waree rek julli daf lay ñëpp tey duñ ko fonkoon def ko ni mu waree ñu ñëpp ñooy correct ñu ñëpp ñooy yaru bu ko defee dañu mën a am courage dañu mën a liggéey nit ñu baax ñi démb lii bokk na si li taxoon ñu avancé yéen yëpp jox leen gëdd ñoom seen njiit saa bu envoyé woon lettre si njiitu yëfee dangay gis day tiit commencé raf rafi la moo tax xam na ne kee envoyé ko lettre nekkul jaxankat la moo tax nekkul jaxankat ndax fonk julleem kon julli saa ko fonkee rek tey moo tax jeune moo tax jeune yu bëri mënuñu dem nit dana wax naan man mun ma am liggéey wala fu ma dem ñu dàq ma wala mun ma am liggéey da moo tax julli bi ngay ginnaawal moo tax yow da ngay jox ku nekk lim moom mais yàlla bu taxawee nga ne ko ah, yàlla mën nga jox ma li nga moom fajar day jot doo gis si jàkka mbooloo mu dey tey mbooloo mi nekk fii ni mu bëree nii fajar doo ko gis tisbaar takkusaan timis gée ajuma de si nga ko gisee mu mel ni léegi julli dafa dem ba léegi ba ajuma kese la wala korite kese la wala wala tabaski kese la fekk julli nekkul pour événement kese julli farata la si bépp julli muy góor muy jigéen rawatina góor nga xam ne julli farata la si yow waaye dem jàkka jur si mbooloo farata la si yow ñun léegi dem jàkka léegi dañ koo bàyyi ñun léegi suñu place yeeg ku nekk dañuy gis nit ñi di julli ñi nekk fii di liggéey faalawuñ julli comme fekk ñoom bokk si nga wax mu naan ah, man kat damay ba pare soog a julli dañ kaa war a dox cër daf ko si heure duñ ko war a def te julli kaa ko loo xam ne képp koo xam ne doo julli yow même fekkee yow da nga gëm na julli farata la mais yow doo julli nag yow dèjà yow yéefar nga te julli moom mooy keno diine saa boo ko defee rek sa diine taxoon te julli ponk la si diine yéen bi boo demee sa xadis bu ne lislaam boole na si asalaam te julli mooy koo xam ne képp koo xam ne du ko def kooku li yoon mooy kenn war doog ak yow laayu jaalas kenn war a doog julli koo xam ne du julli kooku li yoon mooy kenn war a toog ak yow ba pare yaa ngi fa kenn war laa may jabar foo dem di ñaan kenn war laa may la ma tax yow doo julli kenn warul bokk ak yow toog naan doog yow wala mu nekk ak yow kenn waru koo def doo julli tamit boo dee kenn laa doon yow it seen bopp bu dee waroo leen doon la moo tax nekk julli yoon bi moo ne laa tawaaru sa benn mbele tey doon daan de du am si diggante ñaari diine yow nekk doo jullit yow yëfin nga kon yàgg jiit ñi amatoo nañ benn lien far nañ ci yow di leen bokk lekk di ñaan buñ bokk yow boo doo leen doon kon gis ngeen julli ni mu grave te it boo nekkee ne doo julli kooku li yoon moom kooku bu dee ñi jullit ko taxawee nga war a bàyyi ay mbokkam jullit ñoo nekk boo dee kay jullit ñi amuñ si yow soxla te yow warul laa sax denc si bàmmeelu jullit ñi te jullit léegi ñun dañ koo bàyyi ginnaaw lii mooy ki nga xam ne du julli mais nag ki nga xam ne daa sàgganee julli kooku nag moom it génnul si wax ji yàlla nee na fawaylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun toroxtaange ak mbugal ñeel na ki nga xam ne day sàgganee jullam sàgganee julli mooy lan damay seetaan match bi baal ba pare mu soog a julli damay fubal baal ba pare mu soog a julli damay lekk baal ba pare mu soog a julli damay génn baal ba ma àgg damay def li baal ba lii te julli yàlla ko wax kitaaban moo xuuran la heure la am yenn bi day lu mu mosoon a def bu julli taxawee rek daf koy bàyyi dem daal julli kon bokk na si bàkkaar yi ba tey man us zakaat yow waxil maanu sarab asaka ñun léegi dañ koo téye ñun léegi génnee duñ ko te bu daan asaka si islam la bokk te dëkk yi boo tax tey boo gisee àdduna pauvre pauvre dañ bëri fi asaka génnatul démb asaka daraan ko génn ñu yóbbu ko si nga xam ne amuñu mais tey ñun dañoo def ba téye suñu alal léegi asaka génnatul moo tax léegi ndóol bi am fi nit da ngay nekk sa koñ am alal bu bëri am ñu la féetee ginnaaw ñoo xam ne ñu nekk sa biir dëkk ñu ngi nekk sa biir koñ nekk ñu ñàkk te bu naa yéen fekkoon yow yaa ngi génnee sa asaka ñàkk bi dina avancé bu bay léegi sarax tamit laa bari baax ñun sarax am na de mais ñu ay sëriñ ñoo leen koy digal tey fajar boo génn rek dañuy gis kër yu bëri dañuy génn conseil wala ñu bëri dañuy génn di salaxi ay soow ay biskit ak ay nen ak la moo tax ñu nekk sa jàpp nañu saa bu génnee rek njabarkat moo la ko digal wala leen fekk nekkul noonu sarax dafa war a génn yàlla moo ne wala dina fi am wàlli xaqul maalum li sa wal maxrum jullit danga war ne koo xam ne sa alal da si am cër boo xam ne ak par boo xam ne ñu ñàkk ñu ñoo ko moom te lii saa bu ñëwaatee rek saa bu asaka ñëwaatee rek dëkk bi day avancé te ñun yéeféer li ñuy def ay ONG yu mag yi ci bi alal ju bëri indi indi dëkk Afrique yi di tasaare pourtant ñun ay jullit lañu ñun tey fekkoon def nañ ko fekkoon ñun suñuy borom alal def nañ ko ñun sax soxlawul sax alal bee di ñëw ñun ñoo koy réglé suñu bopp réglé suñu dëkk waaye ñàkk génne asaka ak cee sarax moo tax suñu dëkk avancé guddi bokk na si fa day fokk daanul rahmat mooy ñàkk yërmande yërmande léegi moom dafa dem ba ñàkk politique politiciens yi boo xoolee ñu gën a ñàkk yénoo si ñoo dëkk ñoom ñoo ko yore ñoom la ko yàlla jox ñoom la ko yàlla a avancer mais tey fekkee ñoom amuñ amuñ yërmande si nit ñi est-ce dëkk bi dina mën a avancer yërmande rek mooy tax nit nga mën a defal ki la suuf yaa ngi nekk si kaw yàlla teral la jox la alal jox la pouvoir kon xamal ne fi nga nekk nii tegoo ko sa bopp kon daa war a am yërmande si nit ñi moo tax nga mën a liggéey ak ñoom mais boo nekk koo xam ne da ngay réeréelu nekk si kaw nit ñi doo leen yërëm doo leen a dal ngir mooy ñàkk yërmande suñu borom wala day wax mu ne arrahimuna rahman ñi nga xam dañuy am ñi nga xam ne am yërmande suñu borom daf leen yërëm ku ñu toll ki nga xam dafa nekk si kaw yor nguuram yor pouvoiram yor alalam kooku da war am yërmande si nit ñi wàccee sa bopp suufal sa bopp xamal ne ñii jox nga am ni nga dugg seen biir leen ak da ngay di liggéey ak def yu nekk yërmande kon lu war la rawatina si njiit yërmande ñun ñun suñu nii la war a commencé ba pare ñun ñu amal la yërmande suñu biir ba pare affaire bi soog a yéeg kon kon yow da nga gis ne yàlla lépp lu wax rek suñu lay commencé ba pare ñun tey balaa ñoo taxaw di wax diw sàngam wala kilifa gi lii wala président bi lii ñu ñoo war defal suñu biir ba pare ñun tàmm pare rek dëkk bi day avancé ndax yéen di man xaytu ma takunu wala kayfa ma takunu rek yu walla aleykum ni ngeen mel noonu la seen di mel te ñun duñu mel rek président bu ñu bu ñu bett de suñu biir la génnee nekkul malaaka nekkul nekkul leen ñu ñoo ko tànn suñu biir te ñëpp bu ñu melee nii te exemple ñëpp tey bu nekkoon ñoo xam ne dañuy sàcc exemple jël kenn mu nekk suñu njiit ko bu sàccee la may nekk wax bi est-ce que ñun am duñu wax kon duñu wax kon ñu ñoo war a dëkk bàyyi ba pare soo ut njiit teg ko bokk na si ba tey isnaadul amri ila xayri ahlihi mooy ñun suñu mbir bu ñu bëggee avancer dañu jël suñu mbir dënk ko ñi nga xam ne dañoo am compétence ñi xam ne mën nañ koo gérer te dëkk bi lii bokk na su dee koo dellu ginnaaw da ngay gis poste boo xam ne da nga teg koo xam ne mënu ko dara koo xam ne amul xam-xam si poste bi wala wala mënul li nga jël ko teg ko fa kooku lu fay def yàq rek la fay nekkee te loolu daa bokk na nga xam ne kon day tax dëgg avance kon yi mooy yi nga xam ne moo lañ indi woon ne dañ ko waxtaanee te yi saa bu ñu ko bàyyi rek incha allah suñu dëkk dina mën avance dina dem si ginnaaw léegi nag boo waxee nii ba tey am na question buy posé am na question buy posé suñu kanam mooy la moo tax tubaab yi yeeg jéeféer yi seen dëkk avance te pourtant ñoom jaamuñ yàlla ñoom xaaruñ yàlla ñoom joxuñ yàlla cër la moo tax loolu am na lii question la boo xam ne day posé wu ñun ay jullit lañ yi ay bàkkaar la dañ koy def day tey ñu avancé te pourtant tubaab bi gëmuñu yàlla ay yéeféer lañ te seen dëkk avancé na ba ñu ñëpp tey dañuy naan fa lañ tey jeune boobu wax mu ne damay dem Europe damay dem Amérique damay dem fii pour liggéey te pourtant ñoom ay yéefal lañ mais fex nañu ba orienté seen dëkk ba teg ko si yoon la moo def loolu loolu tey dama naan yéeféer yee la moo tax seen dëkk avancé ba ñun ñu ne ñee ñaar mbir moo si am ba moo si ne ñoom seen àddina la ñu nekk yonte bi nee na ab dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir àddina yéeféer la kon yéeféer bi nekkee fii il fallait que am fi alal am kàttan am bu baax lépp lu mu bëgg am ko jullit moo nekk ci kasoom moo tax dëkk jullit ñi ñoo gën a sonn ñoo gën a pauvre ñoo gën a yeyoo yërmande la moo tax ñun suñu kaso lañ nekk te kaso mën da yomb kaso dafa war a metti bu ndewee boobu ëllëg ñoo la koy am yi mooy tourné ñi ñu dem àjjana nekk ci bànneex ñoom ñu nekk si ñoom ñu nekk ci sabara moo tax seen dëkk yi nga gis mu avancé mais di ak benn tamit boo xool tey ñoom seen biir dëkk yi nga gis ne ñoom am nañ économie am nañ arme ba nañ lépp de mais seen seen biir dund te ñoom ñoo gën a mbànd ñëpp ñoo gën a gaaw a rey nit inde nga dégg kii xaru na inde kii agressé na man ne ko ba kaso yu ba kaso yu gën a mel sax fa la nekk la moo tax gëmuñ yàlla faalawuñ yàlla te yàlla moom képp koo xam ne faalawoo ko moom doo musal nekk si si ligoo neex wa axiran yaqulu llahu taala yàlla mi ngi wax mu ne والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا دكبو سيال دكبو تاي بوكو بوكي موم نك سير نك يالا دك مي سابول واتي يونو يالا موم سيرو باخ رك نني نك كون لي مو نغون اللهم اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ñu ngi fàttali mbokk yi weeru koor gi ngeen mi ngi nii des na ay fan gën kaa bëri sax mu naa ne ñetti jour moo si des ndaxte dimanche mooy nekk premier séntu bi korite bu nekkul lundi du nekk mardi may fàttali mbokk yi nag ne leen asaka yi wala sadaka yi commencé na zakatul fitri yi heure jot na war nañ koo commencé génne zakatul fitri moom mooy mudum koor dafa nekk loo xam ne farata la si bépp mu kallaf ak képp koo xam ne am nga ñoo yilif rek yow da nga war génne sa bopp génne na ko képp koo yilif heure bi jot na waroon nag bàyyi ba kodde gi jot nga naan da nga génne joxe ko ñi nga jox nañ ko heure bi lañ ko am nañ soxla war nañoo jënd yëre war nañoo jënd ginaar war nañoo jënd lu nekk kon kooku mo ne genn heure bi tel ko genn heure bi mo def ko koo xam ne génn ndax mo heure bi la ko gën soxla ndax soxla kat fi nga joxe borom moy fi nga gëna soxla tay bo demé ba bisu kat rek nga ñëw doxoo ko ba sax la amati bu ba mom dootul mën defati mais nak ko nga état la des na ñetti fan mo ngi genné génnee jox ko ki nga xamne ne wonu woon na ko zakatul fitri mudd lay nekk si mudd yent bi yent bi neena na zakatul fitri boo koy génnee dëkk bi ñu bu ñu xoolee dëkk bi li ñu gën a miin si li xam ne moom lañ gën a dundee te boo xoolee suñu dëkk Sénégal ceeb daanaka moo ëpp lu ñuy dundee yent bi moom bu daan génnee muddum koor nii lay def loxo bi lay génne li ma nekkoon mudd si mudd yent bi comme que léegi nag yent bi benn nekkoon te léegi ceeb moom daanaka suuf boobu kenn du ko soxla li gën moom mooy nga génnee koo alal exemple mu nga génnee mille francs wala mille cinq rek ku nekk am na kaa sa doole fi mu toll asaka moom yemul si kenn tey doon exemple lii la carrément mais ku nekk sa poche ni mu toll rek boo mënee génnee mille francs mille cinq cents wala ko ëpp rek yow ak ñi nga yilif ñëpp nga génne ko jox leen ko wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi